on réunit tey jii euh, pour wax jëmmale ci euh, recours demain bi mais également si yamuñu ci kese Ousmane ko si cellule am na benn <coughs> lettre bu gudd adressé ko également au peuple sénégalais tey jii allant dans ce sens la mobilisation était effectivement liir naa euh, un diagonal lettre bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko bind. Mhm. effectivement li ma si retenir rek mooy appeler les Sénégalais. Mhm. à se mobiliser pas à se mobiliser pour sa personne. mais pour mhm. l'avenir défendre la République. absolument et défendre la défendre la démocratie. parce que quand même euh, euh, jot na quand même que les Sénégalais défendent la République. aujourd'hui la République va très mal. avec euh, je crois que gisee wax na ko léegi bu ñu gisee certaines euh, je ne dirais pas infraction euh, mais certes si république nga xam ne képp koo xam ne avenir Sénégal ñor na la da nga war a taxaw j'ai bien aimé quand Guissé disait que xeex bi soxlawul peut-être euh, que mm. wax naa ko dem bi fii euh, képp koo xam ne sa opposition nga bokk waroo toog di xaar ne xeex portel ma combat bi. Déthié mën na ko porter euh, Ousmane Sonko nekkatu fi. Euh, il est peut-être il s'adresse maintenant à ses militants à travers par voie épistolaire comme ni mu ko def noonu mais yeneen leaders yaa ngi fi ñoo nga xam ne si opposition bi la ñu bokk. parce que comme ni mu ko waxoon démb. soit on s'oppose soit on est avec avec avec. absolument et quand on est avec le quand s'oppose maintenant. il faut le montrer. supposé maintenant bu ñu demee ba ay intellectuels ñu woowee seen bopp intellectuel def ay signature je crois qu'il y a quelques yoo xam ne de renommée nationale mm. internationale yoo xam ne sax am na c' est pas seulement des sénégalais. bind ab bataaxal pour alerter les sénégalais sur mm. l' état de la démocratie. te je crois qu'il y aussi euh, boo boo gisee recours boobu nga xam ne. Mm-hmm. moom la En tout cas, la, la totalité en tout cas des candidats qui sont signalés. Voilà, la, le Loum, etc. ñooñu ñëpp jóg di di si wax c'est que quand même euh, même si le camp d'en face maanaam le, le le pouvoir n'écoute pas mais la communauté internationale au moins écoute. et la communauté internationale je crois que bu bu demee tey ba le président Macky Sall abandonné cette idée de troisième mandat mais les Sénégalais ne sont pas sortis avec des bâtons pour le chasser ni des là-bas, à partir de la voix des Sénégalais, l'opinion internationale a su juger et l'a appelé, l'a rappelé à l'ordre ne ko yow fi ngay jëmee sa askan baaxul. je crois que j'ai j'ai j'ai lu l'intervention d'un ancien diplomate euh, français qui l'a même dit hein mais bon c'est vrai que le président de la République wax nañu wax nañu ak moom c'est vrai que président nag doo ko ne c'est pas la France qui va dire non bul def troisième am na nu mu la waxee nu mu la conseillé nga xam ne kii lii la ma bëgg a wax. <laughs> loolu nag boo <laughs> voilà ku xamul buur dee na mais kenn du ko wax. <laughs> mais am na nu ñu waxee ak yow ñoo xam ne ñoo la daan xelal nga toog ak ñoom ne la lii ak lii am na nu ñu waxee ak yow daal nga xaw a comprendre moo taxit lii nar a xew suba. boo gisee am na Issa mu ngi wax le collectif de cadres Casam Casamance ak yeneen gars yi ak yeneen gars ñoo xam ne c'est des porteurs de voix. Mm-hmm. bu ñu waxee ñu déglu leen. ñooñu bu ñu jógee ba wax. je crois que ñi nga xam ne ñoo yore le dernier mot maanaam la justice dina am nu mu war a taxawee. Mm-hmm. Mm-hmm. mais pourquoi on dit que l'avenir euh, de notre démocratie se joue demain cette semaine-ci. quel est le poids que cela porte Seydou. bon parce que quand même euh, ce serait ce serait dommage que euh, un leader politique de la trame de Ousmane Sonko. de l'opposition bi oui, au ce serait dommage que depuis en tout cas bu ñu xamee Ablaye Wade ba tey wala bu ñu xamee bokk euh, la pluralité démocratique en 74 mm-hmm. bi ab door a commencé di dugg euh, en tout cas sampe son parti politique. Mm -hmm. pourtant c' était l' opposant le plus radical. en tout cas bu ñu ko xamee su Senghor en 74 bu mu créé son parti su Abdou juuf yaakaar na amul luñ ko jiiñul fii comme délit wala comme jii nekk sax rey nit fii Sénégal. ak leneen ak leneen ay ay ay ces allers-retours en prison je crois que euh, xanaa xale yu ndaw yi ñoo ko xamul mais ñu ñu ñu dudd dans les années soixante dix ba léegi s'en souviennent mais kenn mosul gis ñu dem ci élection Diouf ne ko doo dem pour ceci ou cela pourtant il y avait beaucoup de raison hmm. beaucoup de raisons yoo xam ne buñ ko ko appliqué woon hmm. waroon ko mën a interdire donc loolu ce serait un recul démocratique que ñu gis le l'opposant numéro un ñu dem ci élection ñu ne bokkul. d'accord là quand a toujours évité cela il n'a jamais voulu. il n'a jamais voulu pourtant il avait les moyens de le faire et il avait de bonnes raisons de le faire aussi mm. mais pour sauvegarder la démocratie il ne l'a jamais essayé mm. Mm. donc ici aussi nous sommes nous en sommes là au Sénégal je crois que ñoom dañuy wax toujours une élection inclusive mais encore une fois su ma dégg nu ko waxee dem rek bu ñu déggee inclusivité boobu mooy que képp koo xam ne leader politique nga te te jus de tes tous tes droits kenn warul a xañ nga participer à cette élection la par des ruses ou par des des, des trucs euh, des, des trucs euh, politico-politicienne. D'accord. Malgré que c'est demain, mais aussi il faut savoir que le juge n'est pas tenu que demain mu rendre. mu rendre parce verdict. que demain euh, aussi il y a euh, ouais. plaidoyer arti euh, voilà. euh, les avocats. Euh, mais également au-delà de cette euh, affaire Ousmane Sonko recours boobu est-ce que également c'est pas la justice qui se juge. parce que su Sabassy jëlee décision ñu ñëw contredire ko ba pare yónnee ko igage yooyu yëpp tey jii est-ce que c'est pas la justice qui se juge même. bon moo tax à l'entame de mes propos j'ai dit que la Cour suprême ne va pas dédire le tribunal de Ziguinchor. c'est la même administration. Mm. aussi bien même que la que e. moi je sais pas. avec euh, l'agent judiciaire de l'État j'ai été son conseil technique. Diallo. Yoro Moussa. j'ai dit que mes premières interventions dans ce dossier li ma ci wax lenn la du amee erreur du moom du amee faute du moom parce que je connais la personne qui est apolitique qui ne fait même pas la politique moo ma jëlee conseiller technique de cabinet def ma conseiller technique de département on était dans le même appartement je connais son caractère c'est un homme très loyal pour l'administration Mais malheureusement, le président Détchefal l'a dit, c'est des gens exposés par le président Macky Sall pour ses propres intérêts. Et ça, j'invite euh, mon grand frère. J'invite mon grand frère à ce niveau, je l'invite vraiment à s'écarter des politiques. C'est un grand magistrat qui a fait ses preuves. Euh, war nañu mën a Euh, faire revenir le président Sall et son équipe doo xoolee même la dispersion de leurs idées je parle du camp du pouvoir ni muy demee ci ngay doog ci ngay xamee ne euh, peut-être le président il est mal entouré parce que man leadership bu Macky Sall du ma ko werante parce que am nañu jaar-jaar ensemble xam naa ne du nekkul woon du nekkoon cuune du nekk président de la république du dalul woon du nekk président de la république te dafa dal nag moo tax mu ne nekkatuma candidat mais c'est un enseignement bi nga xamante ni le groupe Benno Bokk Yaakaar dañ ko war a tirer Là où je viens également, le président Déthié l'a dit hier. Il n'y a aucun chef d'État entrant qui n'a pas besoin du chef d'État sortant. Vice-versa. Donc, il faut que mu góor mu góorgóorlu bàyyil ñu fi dëkk bi nga xamante ni wax fa dëgg yàlla dina stable. parce que mënuñu am réew mi nga xamante ni du tàkkee kenn du xëy kenn du am dépense ku xëyul doo am dépense nga ne yow da nga koy taal ci ay affaires donc la justice. Hmm. c'est le moment. de réclamer également sa notoriété la justice aussi c'est le moment de se rendre crédible on n'a rien à euh, on n'a rien à se reprocher également avec cette justice la mais dafa am li nga xamante ni tant que amoo crédibilité munoo ko def l'état c'est une crédibilité état du dara mm-hmm. parce que l'état c'est une administration l'administration c'est des écrits bind la signé joxe mm-hmm. bu fekkente ne yow sa signature boobu c'est pas légitime à mon niveau kon état boobu amatul valeur bu ñu bàyyi benn groupe de personne qui gèrent bien leurs intérêts d'ailleurs vraiment ñu yàq dëkk bi. yéen am ngeen ci yaakaar à part euh, décision bi nga xam ne jàpp ngeen ak seen leader que ni am ngeen yaakaar que ni justice euh, maanaam dinañ jox dëgg euh, Ousmane Sonko ngir mu bokk ci élection yi est ce que am ngeen yaakaar même ci élection présidentielle yu gis nañu DGE Sénat ak la fa jot a xew ñañ fa teggi ñu def recours après même entre temps ñu daal di wut ku remplacer Abdoulaye Sylla conseil constitutionnel kële ñu continuer président mi ngi def ay tournée économique économique am comme il se doit avec le du Ba parrainage yi di wéy yéen ngeen ak yooyu est que kon loolu dina leen jox yaakaar que ni présidentielle bi ngeen jëm en 2024 mm. février ba tax ngeen di rey seen bopp di def lépp lu ngeen mën ngir mën cee bokk dina jaar ci anam yi ngeen ko bëggee. Euh, c'est là où je rejoins également les propos du président Déthié Fall président du parti républicain pour le progrès nous nous sommes des amis de la république ñun toujours dañuy am yaakaar ci réew mi du ñu décourager. Euh, Je vous raconte, je partage avec vous une anecdote, c'est même une leçon mm -hmm. que le président nous a enseignée, le président Déthié Fall. mu ne lorsqu'on est dans un champ de guerre et que vous avez fixé un objectif, quelle que soit l'origine des tirs, bul dëpp bul dellu ginnaaw avancel du ñu dëpp du ñu dellu ginnaaw dañuy avancer xam lu tax ñuy avancer. c'est pour l'intérêt de la nation. la nation c'est là où on se retrouve ñun ñëpp fa la ñu war a mën a tase pour waxtaanee réew mi. développement réew. dafay jaar ci ci loi. dëkk bu amul loi anarchie la. mais si le GIE est faussé dès le euh, départ. le GIE bi e e ko war a organiser. non euh, xam nga du ma ne doxewul xëy na ku tooñ ku tooñul suba dinañ ko leeral. mais c' est là où le président Déthié Fall dit que même si le décret est illégitime. Mhm. il faut que les nouveaux membres se légitimisent. en quoi faisant. en quoi faisant moom mooy wax dëgg def dëgg organiser dëgg ci yoon ci ay élections. ñoom dañu am seen partition. mais bu fekkee ne leen falee jaarul ci dëgg. déjà moo tax je vous di non attends j'ai dit euh, Sénat ba seen mandat jeexee xam nga yàgg na. bien yàgg na. beneen loi ñëw ne à six mois des élections waroo baare waroo indi virgule. waroo ci ah. yokk dara. Ah. ça veut dire que ñun comme ñun depuis plus de six mois. ils sont dans l'illégitimité mais il y a yi nga xamante ni. on peut s'en passer tant que stabilité mu ngi am parce que on n'a pas de problème de personne non attends y a pas de problème de personne kii moo nekk fii kii moo nekk fii amuñu problème boobu l'essentiel mooy li nga xamante ni moo tënk charte réew mi ñun ñëpp ñu tënku ci en tant que ay sénégalais nañ ko respecter moo tax président ne même si le décret il a bien il a été très clair même si le décret est illégitime c'est le moment de vous légitimer donc foofu laay tontu ci niveau boobu léegi le deuxième niveau je pense que vous avez parlé des des parrainages. oui parce que après après l'affaire Ousmane Sonko xam ne inclusivité la. non attends c'est euh, c'est des combats c'est des combats après affaire Sonko inclusivité ñu ngi koy wax après affaire Sonko y en aura. gisoon nañ 2019 Bougane Gueye Boubacar Camara c'est des a dit dans la coalition Yewwi Askan Wi on va aller ensemble pou les élections locales. Mhm. et législatives. pour les élections essayons de faire des euh, l'éclatement l'effritement des voix mm. loolu la ñu wax donc du ñu ñëwee ci loolu mais ku ci nekk du ñu ne na na ñëw leen ngeen jël seen ay fiche parrainage candidat bu nekk dafay yónnee pour jël fiche parrainage am nekk sur le terrain parce qu'on fi ngay waxee daa lay tontoo Issa may ma rek may ma Issa xamante lay tontoo non dama ne est-ce que est xaaral non parce que bu fekkee ne dama question bi xëy na yaa ko parce que waxuma ci côté pourquoi ngeen jëli koog yooyu non mais dama ne est desewul même yeneen combat dañ ne boo tëbee dab dal ci xal dese na la beneen tëbin Ousmane Sonko suba ak lu mën di xew dina est-ce du desaat yeneen aussi muy parrainage yi nga xam ne duñ cité benn leader ne mën nañ ko recalé mais ñëpp xam nañ que mu nekk nii kan mooy jàll fichier électoral bi yoraguñ ko ak yeneen waxee que ni est-ce que du desaat yeneen combat yoo xam ne aussi day nekkaat ci seen kanam seen kanam seen leader di Déthié Fall ak l'opposition ak même les autres candidats même ñi fare ñi nga xam ne xëy na gisuñu leen ci seen table ji mais ci en tout cas ay candidats lañu l'organisation de manière générale lay waaw gis nga euh, combat yi mhm. fiche parrainage wuti parrainage ak la participation de tous les com euh, ak la participation de tous les candidats yooyu yëpp ay combat la avec le régime président Macky Sall son excellence mhm. parce que loolu lañ dund euh, le président Déthié Fall l'a rappelé tout à l'heure mhm. qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure mu ne Abdoulaye était vraiment en en en en dualité avec le président Idrissa mais teewu ko pourtant président Idrissa nekk na candidat en 2011 2012 le président Abdoulaye Wade était en dualité forte même avec le président Macky Sall teewu ko président Macky Sall nekk candidat sànq le doyen Tete Diédhiou l'a rappelé même en 92 entre Abdoulaye Wade et le président Abdou Diouf dans ce même schéma mais moom bi mu ñëwee ba léegi képp ku nekk candidat am popularité am un projet de société mu ngi lay xool nan la lay faagaagalee il l'a fait avec le président Karim il l'a fait avec le président Khalifa Sall et il continue de le faire avec le président Ousmane Sonko et je vous dis ici dans votre plateau que tant que le président Macky son excellence jugewul ci boppu réew mi du bàyyi pratique yooyu quel est le délit qu'on reproche au président Ousmane Sonko c'est d'être populaire quel est le délit encore qu'on reproche au président Ousmane Sonko c'est d'avoir un projet incarné et épousé même par la jeunesse donc la seule problématique pour le président Macky Sall c'est d'être candidat à sa succession te nag déglu ma képp ku iñaane sa ndono sa deewin ñaaw mm-hmm. d'accord mm-hmm. pour préciser aussi uh-huh. que ni euh, même le président lui-même vient de m'envoyer le communiqué en tout cas parce que sànq amul woon signature moo tax waxuñu woon euh, kii bi euh, mooy collectif cadre Casamance c'est le président qui l'a signé Pierre Goudiaby Atepa président du collectif des mm-hmm. cadres Casamance d'accord Georges ci sànq Issa mi ngi koy wax suba Cour suprême avocat yi mën nañu plaider ba noppi mu renvoyer